dans une an waaw sunu tàkk day moo doon euh, li si jiitu ñëw euh, siyaare si sëñ euh, Muntaxa xalif général des Mourides ñëw it waxtaan ak moom ci wàllu économie ci problème yi nga xam ñu ngi koy jànkoonteel ci réew mi loolu daal moo doon tànk yi gis nañ ko ne euh, waxtaan nañoo moom bu baax wax nañ ko lii nga xam ne mooy sunu njàmbat wax nañ ko lii nga xam ne mooy sunu tiitaange ci wàllu économie ci réew mi ndax dañu gis ni am na société bu mag boo xam ne bii nee nañu mooy deuxième wala troisième société ci France di def wàllu commerce ñëw ci réew mi installé te réew yi nga xam ne jaar na fa yépp muy Maroc ak yeneen réew yu bari bañ demee ba gis ni kii dafay yàq économie réew mi dañ leen fa jële ñoom nag ñu ñëw senegal installé fi biñ fi installé it fekkoon nañ fi yeneen société ñuy wooye Citidia ak yeneen yooyu yépp tey ni multinationales yi def di absorber société absorber nañu société yooya ba moomaat lépp léegi nag ñu attaqué li nga xam ne mooy secteur commerce bi commerçant yu ndaw yi nekk ci commerçant yu mag yi nekk ci te commerçant yi képp ku leen xam mooy ji jóge woon ci daara yi ak ñi nga xam ne dañoo nekk ci réew mi te amuñu liggéey ndax ku xam Sénégal xam ne tey réew mi tey liggéey bu lay fay weer amu fi loolu nag la ñu woon jàmbat ku sëñ bi waxtaan ci ak moom mu ñaanal ñu ci loolu jóge fi ndax it fii mu toll tey képp kuy def commerce njàq ga ndax commerce bi ñu ngi ci gros ñu ngi ci demi gros ñu ngi ci détail lépp ñu ngi koy def li ñuy jaay ci marché ba muy luy jar ñaari dërëm wala ñetti dërëm wala fukki dërëm lépp ñu ngi koy jaay loolu nag bu wéyee marché yi kenn dootu fa jënde su wéyee boutique yi kenn dootu fa jënde su wéyee économie Sénégal yëpp danañ ko nangu def ko ci seen loxo te ñun ñii nag ñooy yoonu murit ndax ñun ñooy taalibe yi ñooy waa kër Serigne Touba ñoo jóge woon ci daara yi ñoo jóge ci kër yi jóge fi dem ci dëkk yi liggéey ba li ñuy liggéey lépp tey ci la ñuy yore réew mi ci la yore yore way jur ci la ñuy def lépp loo xam ne lii lislaam sant nañ ko ba noppi it mu nekk société yoo xam ne yii ci wàllu commerce ñun dañoo yar ci diine yar ñu ci ak taalibe lépp loo xam ne lii lislaam nanguwuñ ko loolee dañu koy sori ñoom nag amuñu gëmuñu diine du ñuy julit ba tax ne lépp loo xam ne lii lislaam nanguwu ko loolu lépp ñoo ngi koy jaay loolu tey mooy suñuy tànk beneen tànk bi ci des mooy ñu gis ni yenn marché yi ci Dakar bu ñu demee ba tabaski jot wala korite jot dañuy organiser ay foire ci biir marché ba def fa ay bâche bâche yooyu duñ ko wax sax ay cantine ndax ay bâche lañ yoo xam ne yii ay abri provisoire la jaay ko ay nit yu jóge ci àll ba buñ dikkee fat marché bi ba kenn du ma dugg ci marché bi ah muy njaayu marché ba yëm jël ko loolu nag lañ kañ ci gën ràññee mooy HLM loolu yi bokk na li nga xam ni dugal nañ ko ci noppam sëriñ Muntaxa ndax xam nañ ne noppam bi lépp lu ci dugg faj loolu moo doon sunu soxla ci gàttal. wàllu mbéy mi ak càmm waaw lim tontoom mooy njortam rafet na lool ci réew mi ndax sëriñ Touba def na ci réew mi loo xam ne lii sëriñ Touba ci boppam def na ci réew mi loo xam ne lii képp ku yeewoo ci réew mi da nga jot ci xibal googu loolu mooy tontoom nee lépp loo xam ne lii. mën na ko def ci ñaan ci lépp loo xam li suñuy problème yu ñu jànkoonteel la pour problème yooyu mën a faju it incha allah dana ko def. léegi euh, waaw xam nga euh, ñun ñu ngi def ay tournée ñu ngi def suñuy liggéey te lii ñuy def tamit dugg na ci nopp gouvernement bi. te gouvernement bi yaakaar naa ne def nañ ci réunion ci semaine bii génn ak ministère du commerce am na ay décision yoo xam ne ñi ngi ciy waxtaan ak ñoom yaakaar naa ne loolu bu sottee euh, euh, euh, lépp dana baax. beneen bi ci des tamit lii nga wax ni ñëw nañ ci région de Diourbel dëgg na mën nañoo dem Diourbel waaye Touba moom mënuñu fee ñëw ndax Touba dëkku diina la Touba dëkku commerce la Touba ñi fi nekk ñëpp. dégg nga ay taalibéy Serigne Touba la te lépp loo xam lii dëppoowul ak l'islam dëppoowul ak li Serigne Touba digale loolu kenn du ko fi def moo tax am naa rafet njort bu rafet ni moom fuñ mënti dem moom Touba bii du ci bokk. jéego yi ñuy def mu rek mooy ñi ñëwee Serigne Mountakha Mbacké noonu lañ fas yéenee demee tamit ci xalif euh, général de Tijane waxtaan ak moom. sakku ñaanam loolu la ñu fas yéene defee ci xalif généraux yëpp fenn fu ci nekk muy Kaolack muy Dakar fenn fu ci nekk danañ fa dem sakku ñaanu xalif général ya fa nekk ñu defal ñu ñaan Ibrahima Lo vice président UNACOIS